di tuubal yàlla saa borom di ko jéglu di sant di sant Sëriñ Tuubaa di ko gërëm di ko seereel jullit yëpp ak murit yëpp sama jotaay bi tey bii nag maa koy def ci sama coobare di yéene itam mu doon ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa di ñaan itam muy njariñ loo xam ni Sénégal gépp da koy jariñoo ak jullit ñi mm, te Sëriñ Tuubaa defal na ko ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa kese goo xam ne benn yàlla du tax ana li waral loolu moo di nun nun jullit ñi dañoo bokk mën naa ne nun waa senegal sax dañoo bokk menn sàq moo xam ni nun ñëpp ca suñ jël di bàyyi ko te bu lakkee wala mu yàqu dootuñu am jël mukk ndare bu dañ ko yalwaane wala ñu saraxnu ko sàq moomu nag dafay loo xam ne ku seen lu koy lakk wala lu koy yàq te man koo man koo dogalee wóoroo caa nekk kenn soo ko mënta dogalee war ngaa yoxoo ba fa sabaat jam ba ñu nga bokkal sàq mi xam ni ñépp a war a jóg loolu muy muy moom lañ tuddi actualité te réewum senegal toll ci gannaaw loolu ci wàllu diini lislaam ji ñi ma ci bokkal kër Serigne Touba ñu di murit dëkk bii nu nu ne muy tuubaa di suñu capital di faggu téefub Serigne Touba dayoo bi mu am ci biir Sénégal ci cosaan ba léegi ma leeral ci tuuti mm, loolu jàllee toolub Serigne Touba bi mu fi bàyyi batal na ko nun muriti Serigne Touba yëpp muy alxuraan moo wax ci tuuti loolu li ma njëkk wax nag muy muy sàq moom mu wax muy Sénégal sunu borom dafa wax ni wa maa kaana rabbuka liyahlika al-qura bi zulmin wa ahluha muslihuuna maanaam sunu borom du alak ab gox wala dëkk wala réew te fekk waa réew ma am na ñu nekk ci seen biir ay benn benn yu yu di defar islaax boobu nag sunu borom jagleelu ko góor walla jigéen wala mag wala ndaw wala sëriñ wala donga dani am ré am am réew wala dëkk wala pénc lu ñu moy mooy yàlla ci ay toojaange ba yàlla nar leen a alag caalaa génn wu ko soob daa fekk suñu borom xool na ba xam ne amul kenn ku fanaan ci dëkk ba ku koy defar moo tax nag mooy sawara bi ma wax ni bu tàmbalee eh, nit ku ne war nga caa wax ñàkk gi mu ko ñàkk a wutal aw xeet nag moo tax ma di ci wax ah, fi nga xam ne fi la tollu nii ci jàngoro ji ak jéem a jiñanteeg moom ku ne pexe man ca am yaa nga ca waxaan naa ko barki démb ci benn site dafa naa Fallou Ndiaye mi yoroon site ba waaye leeralaat gi tey dadi ni yàlla dafa dogal réew mi dul attewu ci lislaam ci lay euh, laïcité lay lay attewu ñu samp président dénk ko ko euh, moom mu xam sart réew mi nun citoyen yi ñu ci bari xam sart réew mi mu mu joxe woon décret fan yii ci ginnaaw ci li ko yoon may joxe ay atte bokk na ci atte ye marché yi nga xam ne dana tëj heure bokk na ci atte ye jumaa yi ñuy tëj bokk na ca atte ye huit heures ñëpp tëri moo waxam ne bu amee fukki fan ak ñaar dana seet ba xam loola day wéy wala du wéy fukki fan ak ñaar nag defe naa ñetti fan a ci des tey la juróom-ñeenti fan tey jii tamit di àllarba mu waral dajale assemblée bi ñu wateel ko loo xam ni day day laat takk loxo yi député yi ak ministère yi benn baatam rek di dox te baat bi itam nun du xam lu mu cay ràbb day jékki-jékki rek wax ko euh, ma bëgg nag képp ku kuy dégg li wax moo xam ci xeetu citoyen grade bu la ci yàlla jox ñoo xam ni man li ma tax di wax rek weesu sàq moomu laay ba ñu mu lakk euh, te itam noonu dañu di ay baadoola di ay civil waaye dañ fay yàgg juróom benn fukki at ak lu topp ku ko juddee ci réew te mosoo génn Sénégal boo ànd ak sam xel lee nga xam lu bari ñu yàggit ci kaw gi diggante bay ak sàmm kajoor ak bawol dañ ko miin loolu ak saalum sunu toog benn barab mënut a teelee xew ci réew mi ñu di ko xam nu mu gën ñu xam ni bokk na ci li ngay xam ni saa bu ko yàlla xiiree ci joxewaat kàddu bu ma nee ànd ak tuuti ci woyofal yërmandeem lay doon yërmande jooju. dafay loo xam ne bii moom rek a tax ñuy am yaakaar ci nit ba di ko fal tayit moom la sëñ tubaa boote woon mbooloo yi ba ñëpp wuy si ko ku fi mas a nekkal sëñ tubaa itam buurub àddina boo jamonoon teel fàttali ko ko loolu Senghor bi muy bàyyi réew mi siem laa di doon di di wax ak euh, moom di tàggatoo moom di dénk Abdou Diouf ci ay cax daf ko ne sëñ tubaa yi dafa ñaanoon boromam mu yërëm mbindéef yi irham jamii'al waraa la wax daal ni man mii nag dara darajey ñaan yàlla mu yërëm mbindeef yi waaye dana am fulla ju toll ni ku yërëm mbindeef yi di leen dimbali may wax ak yow di jëflante ak yow ku ko mënut ma bañ a jotee yow dara feeg maa ngi dund mooy ba mën naa maani sëñ Saliou bi mu doonee xalifa sëñ Tuubaa màggal gi mu njëkk jëkk jëkk doon xalifa xasi dëgg yaa rabbi eh, xasi dëgg rabbi maasur ashaana googu yi la ñaane ak farij bi yaa Mustafa an ummati daal di maa ngi ñaan ci barke xasi dëgg sëñ Tuubaa gii sëñ Tuubaa yëpp néew na loolu suñu saaliwu tëj ak ñaan te téyewu ko yaa maalikal mulki yaa man di waxam yu mujj yi nga xam ne ci la doon tàggatoo ak jaam yi neewoon na man du fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal te yàlla moom i jaada jaamam te ci yërmande la leen yore kon nag yërmande jooju ginnaaw sabab bi bu wàccee ci yàlla ba noppi euh, diffusé ko ba ku ne am ci wàllam ci loxol président réew mi ne ko yàlla teg ci lii ñëpp bokk yërmande jooju bëggoon naa képp koo joti ca moom ñu bàyyi loo ko ko xel bokk na ci loolu mooy euh, huit heures fii nu toll teel na ci jant bi ndax ñu ngi jant baa ngi sol léegi sept heures vingt deux te bu ñu agsee ci koor gi dana jege sept heures quarante ñu xool nag diggante ndogu ak ak ak ak julli gee ni mu mel ak naafile yi nit ñi daa def ak tàmm gi ñu ko tàmm ak ak ak tàngoor wi ñu tolloolee itam nga xam ne fii nii ne euh, saison bi gën a tàng ci la ñu ne mooy avril mai juin mooy bi gën a gudd ci jant bi ci la gën a tànge ba tax nag bu ko bu fekkee du lu muy mën a daal di bàyyi ci fukki fan ak ñaar yi mu njëkk a wax da ngay dolli dara yoonu ñaareelu bu koy def lu mu ko gën a puus ba ñi nga xam ne dañoo guddee wàcc mën a ñibbi euh, nit ñi mën a mën a reer kenn ku ne mën a am jàmm. ku am soxla soo xam ne bii guddi nga ko war a dox itam ndax du ca yéen ku ne la ngay dox bëccëg nga ko mën a dox mën a dox dox loolu xeetu yërmande la te jaadu na te itam koo def mënut a wàññi ci wér-digg dara loolu bokk na ci loolu. ñaareel bi mooy transport bi war nañ cee waxaat ndax nit ñi tànk gi metti na ndax koo wax ma ni wata yi nanguñ maa yóbbu wata yi li ñu leen di yóbbee mënu leen may gasoil loolu itam. faggu gi ak fegu gi baax na lool waaye nit ñi yàlla rek moo leen mën a sàmm ak ñu góor góorlu waaye sart yooyu day diis nii waaye xit ci ay mboy ak dóor daw dàq yéeg miirub jàmbur rek bañ ko la jàpp ak lépp gi ci te am na ñoo xam ne bii bu ñu doxee juróomi kilomètre liggéeyi suba ñu defaat ko ginnaaw suba ñu liggéey li defaat ko danañ tooy te ay bàyyi ay góor góorgóorlu rek a fi ne Sénégal bu ñu ko defee ñeenti xaaj benn bi. mooy bi nga xam ne moom wóor na ñëpp ne géejal nañ te te xaaj boobu boo ko toppee bu dee ñaari xaaj benn bi ci naa bi lañuy liggéey nekk ay fonctionnaires beneen bi mooy mooy commerçant yu mag yi ak ak ak ak kilifa yu diine yi nga xam ne dañuy bari ay addiya te kilifa diine yi liñ boot ci lu ñu war a ci lu ñu war a dundal lijjanti ko ci ay ngénte ak i njaal moom mënuñu ko booleeg am capital bu yaa ñaareelu ñaareelu as bi mooy ñi toll ci liggéey nii. te te doo romb ñeent fukki at juróom te ñoom lañ tudd ay yadawi yoone ci arab ñenn ñi ay ay dañuy maçon ñenn ñi ministre militaire yi lañ doon ñenn ñi ministre bu waar lañuy doon ñenn ñi ci marché yi lañuy nekk di jaay ay jën ñenn ñi di làqar ci kenn ku ca mën a régler dépense fukki fan ak juróom yi taqaloo teg fi benn barab te bor amu ci amut ci ñaari xaaji senegal xaaj bu njëkk bi wax naa ko ñaari xaaj yëpp yëpp yëpp ñoo bokk li mu wax kenn ku ci ne yàlla suturaal na lay na nga mën a am njël mën a boot boog benn borom kër amoyees ñaar ñaari mën ngaa yor sa bopp ak ak ak ak beneen kër bu mel ni yow waaye kenn ku ci man a boot ñetti kër amul xaaju ñetteel bi moom dañoo ne ci biir nation bi waaye ay gone lañ ak i jigéen ak ñu lont dañ leen di yóbbaale faw tawoo yàlla ni bi ne dina loolu nag su àndaateeg nit ñi daanaka duñu liggéeyee li ñuy liggéeyee ko si néew bu ñu noppee danañ sonn coono boo xam ne daanaka dañuy xelu di ñibbi loolu itam li ci mën a ànd ak yërmande jotewut ak wéré di dara mbas mii ñuy nuróo léegi lii mos maa gën a diis lii fuuf gën koo metti gën koo ñàng gën koo ñàkk sutura waaye mboolem kum fekkan wala nga jàng arsif yi amoon nga xam-xam ci ne nit ñi dañ daa liggéeyi lépp dañ ko bàyyi woon loxol yàlla di faju tey liggéeyi kër Sëñ Tuubaa gii diirub ne mas naa ngi fi waaye dañ daa liggéeyi dal la nit biir kër gi dal la nit ca mbedd ba waaye lenn lu lu Sëñ Tuubaa daa def la ñu bàyyi du daaree kamil ja du nodd ga du julli ga du marseya daanañ moytu nag bu ñu waree raxasu raxasu bu ñu waree ñakku ñakku lu ñu war a def def ko waaye nag loola mooy mooy la ca war a doomu waaye nag dem ba wakkiilu gi ñu war a ci yàlla jàpp ni maanaam ñëpp nag dañoo war a jug kenn duutu ak ni Sénégal mel réew yi ñu ñu bokkuñu réew yooyu bokkuñu am na réew yoo xam ne bit mën naa yor doomi réew ma juróomi am na bit yoo xam ne bii seeni waroom mën na yoral courant nit ña yoral leen yoral leen paj ma yoral leen ndugg ma ay woroomi alal dafa nekk yoo xam ni bu ko gouvernement ba yorut itam kenn ku ci nekk mën ngaa yor sa bopp juróom benn weer yoo xam ne bii doo soxlaal gouvernement bi dara Sénégal bi bist bi mënut a yor Sénégal juróom benn weer bist bépp ko séddalewul mënut a yor Sénégal juróom benn weer te li ma njëkk a wax mooy dóor dàq yi mi ngi fi te li ma wax nii ko teg nag sàmm yi nga xam ni jur gi nuñ koy def bu ñu tëddee ci kër gi jur gi nuñ koy def bu ko te dongay tërbiye yi boo demee xel koom boo demee tiib boo demee Daaru Musti dongay tërbiye yaa ngi ne xas nu ñuy def seen tool yi na yañ daay liggéeyee dañ koy def matériel ba nañu koy def te te ruuj a ngi ñëw moo aadamee buy dee dana fekk ñuy ruuj nawet bi di ñëw dolli ci waaw loolu ndax mënut a suuraale moo tax nag ginnaaw moom kàddoom dafa diis te amul ku delloo ginnaaw te amuti député député yii ñu naan dañ koy signal dara loolu duy député ndax ginnaaw moom kuy dem ku ne danga naa maa ngi dem signal la gouvernement bi bëgg loolu du député député danga naa sama département ma fal nangam moom lañ manqué ca département ba nga wax ko sama morom wax ko sama morom wax ko le président bëgg nga xool ko bu nekk sa nga ànd ca bu fekkee am na ci lu ñu war a na waaye ten ci mën a dolli lii loolu mooy waawruhum sola li nga bëgg kenn ñu ma wula ni déet ku ñëw itam du wax la nga bëgg ba mu ba mu signé ko loolu moom daanaka jërul mbooloo ma sax dafa na wala ñu ne ko jërul ngay woo ay député defal li nga bëgg a def seen laaj danoon ay Sénégalais lañ taam la ñuy xel man du ma nit kuy kontar buur wala may wala may ànd ak buur damaa wax li nga xam ni ku ko dégg da xam ni ci digg bi laa jaar xalaat yooyu nag moo la moom laa bëgg fu fi nit dem te man ko faa jottali ba ci kilifa yi diine yi ginnaaw ñoom ñoom la gouvernement bi waxal du wax ak noonu ñoom ñëpp ñu bokk xam ni ñooy su ndey ñoonu boot te lu ñu yuuxu yuuxu duñ mën a génn seen kër yi donte benn kilo teew fa nekk nag ñoo ma koy bokk waaw te tool yaa ngi ñëw te mënu si ko ñàkk bay loolu lépp nag moom bu xisee ba indi décret ak dellu ginnaaw amaat loolu mat naa digg loolu mooy li ma doon ci actualité bi xam itam ne lujum saison jot na weeru tubaab bii ne bu jeexee day tàmbale di di di di mat a génne te mënee su koo rënk mënee su koo denc loolu lépp ay xalaat la laaj te te bu mois de mai jeexee mango day daal di ñor réseau Tambaye réseau Casamance ak bu kees li ñuy ñor ci mango kenn xamul nu mu toll mënee su ko rënk mënee su koo galasé kenn du xam nañ koy def loolu nag war naa tax kon bu nit ñi mun di déplacé it marchandise moom wut yow wu jaar ba muy déplacé marché luuba yi bu ñu ko mënta ñàkk tëj itam ñu dimbali ñi nga xam ne ak jur lañ yor di ca jula ba ku cay bëgg a jaay mën a am koo jaay ak yoon wuñ ko mën a jaarale waaw ndax kat lii li muy li muy am am terewut ëpp daal yi ñu ngi faj pompier yi ñu ngi génn gendarme yi ñu ngi génn kon nag li xam ne ay lawaasim la moom mooy far fardu xëy ni nga xam ne nit mënu koo ñàkk moom warees na koo sikkar ci bu ñu nuppee nag bu nit ñi dee toog ak bu ñuy dem ñoo xam loolu moom waaye daal takk lépp mu nekk benn bolok kee xam ne bu jaay du añ